jërë ngeen jëf yéen sunu mbokkan bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa waay maamaat le di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xamee ni dama laa daral ci biir site bi rek saa nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam comme ni ma ko defee saa su nekk ci goxe fasantikoo yi dama leen di tànnal ko xam ni am naa ci moom yaakaar sëriñ borom def na ci moom xam-xam Euh, ñu waxtaan ku ci mel ni Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Junior nag bëgg naa tey ñu yaatal bu baax a baax ci wàllum xam-xam rawatina ci paj ñaan bi nga xam ne mu ngi ci yëngatu waaye yemut foofa dina ñëw ci actualité mu di xew-xew jamono ko xam-xam ko ci ndax da ci def ay ba tax na dinaa ko laaj ci réew mi ni mu doxee élection législative yi nga xam ne dëgg mën nañ ko ni ki le 17 allah gis nga coow li fi mu ne nii bëri na euh, bés kii nu mu tuddati Ousmane Sonko mu ngi ci campagne bi waaye opposition bi ñu ngi seen euh, yoonu bopp foofu dinañ fi waxtaan bu baax ndax am na révélation yu mu fa war a

ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bilhuda wa diin alxaq li yashiro ala diini kulli wa kafa billahi sayida man yuti llah wa rasulahu faqad rasaxtu wa man yaxsuna faqad hawa wa farat wa dalla dalalan baida wa naus billahi min kulli sharrin wa shuux wala hawla wala quwata illa billahi al alil azim raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin rasulullahi nabiyan wa rasulan alayhi afdalu salaati salaam bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam sant asayxul xadim ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu mbooleem eh, internet yi nekk ci réew mi ak bitim réew yépp waaye di jiital ci nuyoo bi akub siyaar a muhammadul muntaxa mi nga xam ne mooy jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem ay rakkam ba naal yi nga xam ne moom la naalal a Cheikhul di suñu yaakaar yi tey ak ëllëg suñu boroom defal ko ci lu kawe njortam mu àgg te mu fekk lépp mbàkke te ànd akuk wér ba sumbaat yeneeni naal waaye di ko ñaanal mbooleem xalifa sénéro yi nekk ci réew mi fu ñu mën a nekk rek ci réew mi mboolem xalifa généraux yi nga xam ne seen liggéeyub maam lañu ñu dond euh, jiite ab tariixa euh, ay pas-pas ak yaakaar topp ci seen ginnaaw suñ borom defal leen ca ndam loolu la ñaan kon ñoo ngi lay dalal fii ci kër gi euh, yow de xanaa mas masoon ngeen fee ñëw ay jamono waaye mel na ni ak léegi moom xataawi jamono tax na émission bi yàgg ngeen ma contacter man itam waajtaay wi ñu koy waaj rek waaye tey suñ borom dogal na ko kon ñoo ngi leen di dalalaat fii ci seen kër di leen wax ne ahlan wa sahlan barke jërëjëf sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Junior am na solo ginnaaw ni set yooyu tànd ak dal comme ni ma ko waxee sama biir intro loolu lañ fas yéene développé yaatal ñuy taatal mën a jëriñu. acca dama ñëw ci listixaar wala su ma neexee sax moo wooyee ko seet ndax nit ñi laata ñuy dugg ci dara dañuy bëgg a xool li ci nekk ba xam ndax am na lënt lënt du ci nekkee ñu wax leen ko nan la ñuy def ba génn ci tolof tolof yooyu dañuy bëgg a lépp loo xam ne dinañ ci dugg bisimilah seet bi nga def. waa jërëjëf euh, yàlla dogal na man euh, boo nee Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Siñoor euh, ñëpp xam nan ma fii ci réew mi ci lin ma xam ci ñooma ñi ma fi jot a xam boog ma yëngatu ci wàllu ñaan. yàlla dogal nag ma ganee àdduna ci ëtt boo xam ne loolu rek lan xam xëy na boo demoon ca kër gu mag ga eh, xale ba fa gën a tuuti boo ko jëloon tey pour lu jëm ci wàllu faj aajo dana niiw aajo joo koy diis te doo du ko mën a faj loolu nag lañu koy may mooy boo ganee ci ëtt boo àdduna ci ëtt boo xam ne xam-xam la xam jàng daanaka boo feree am soow la nga cay teg du bari ñu yóbbu la ca daara ja booy waat daanaka day fekk sax ñi nga moroomanteel ñëpp yor na ay soxnaa ki njaboot kon yàlla dogal na ci ëtt boobu laa ganee àdduna euh, nga xam ne su ma doon wax xam-xam dama naan dan koo jàng waaye dañ koo dondu euh, dondu xam-xam nag li tax mu am solo te neex te bari njariñ mooy da ngay fekk ñoo xam ne dañoo dox dem ci ëtt bu nekk gëstoo fa xam-xam dem ci réew mu nekk dem ci dëkk bu nekk Eh, yow nag nga am sansu gane adduna ci seen biir lañu doxoon ay kilomètres yu bari wala ñu duggoon ko eh, ci ay oto dem fu sori wala ñu yéeg ay avion dem fu sori ngir gëstu ji xam-xam yow da ngay toog rek am ko gratuitement kon loolu ak cant la goo xam ne ñu ngi koy sante suñuy waajur waaye santee ko suñuy kilifa yépp nag ndax wax dëgg yàlla ku ne ñuy def ku ne ñuy jox ca la nga xam ndax yàlla dogal na ma bokk ci ñi nga xam ne aajo june day ñëw fii ci kër gi te loolu yàlla dogal nañu ñu bari xam nañ ko ba yàlla dogal nañu ñu ci baree bari itam euh, euh, yàlla ma boole ma ak ñoom ci wàllu ñaan ñaan nag buñ ko waxee dafa am laytaay dafa am yu ko yu yuy jiitu ndax xam nga ñaan moom aw yoon la yoon wa nag mën naa ne loo ci euh, faussé rek daanaka la ngay ñaan dootul am njariñ lii ñuy wax seet ak lii ñuy wax listixaar man ay boroomi xam-xam yu mag dan ma koo jànkal ba mën na maa teg sama loxo ci kaabil ne kum mën a doon bu ma xoolee say mbir la ma lay wax yépp ay aaya alxuraan lay dëppool eh, te lépp ci sunna sayduna muhammad lépp ci xam-xam lay tege ci wàllu lasaraar ak seet du ma ci wax lu ma tegut ci xam-xam loolu ñi ma xam ñëpp xam nan ko jàpp naa ne ci réew mii ah yaaka jàpp li ma gëm mooy maa ko fi dàq wala bokk naa ci ñu ko fi dàq loolu man loolu laa gëm ndax musuma cee wax lu nit mën a dindi waaw xëy na nag da ci am yoo xam ne moom ay fola nekk ci internet bi naan euh, dana am kilifa gu dee ak dana am ku dund ak dana yooyu moom euh, ab caaxaankat a koy def yooyu du dara moom yooyu moom ñiy tappalee koy def daal loolu ay caaxaan la waaye xam-xam du loolu lépp voilà xam-xam du loolu lépp xam-xam daal mooy li nga jàng ba xam ko maîtriser ko képp ko jaaxle bu ñëwee nga faj aajoom te loolu nag jàpp naa ne suñ borom defal na ci loo xam ne mësuñ cee jëflanteeg nit ba am ci déception kon loolu ak cant la. ñu ci jaaxle bi bari ci biir réew mi mu di benn tawat ñu ko wooyee néew kàttan am na ñoo xamante ni juróomi minute jàpp fukki minute sax ci kaw lal mën nañ koo am feebaru néew kàttan. waaw yow feebaru néew kàttan moom xam nga yàlla dogal na man euh, am naa ci ay may ak i jagle yàlla dogal na itam danaa ci danaa ciy faral di defar yoo xam ne li ëpp ci sax tappalekat yi dañ koy jël euh, dañ koy yónnee fii dem yokkaat ci seeni mbir maanaam rax ko daal ba noppi di ko joxewaat loolu moom ak may laa ci am goo xam ne moom <laughs> sant naa ci yàlla bu baax a baax euh, jafe-jafe bu ne nag euh, nit am na ko ci wàllu ngóora ngóora nag xam nga li ci jiitu mooy euh, xel xam nga xel ci boppam day feebar mais ngóora yàlla dama cee may loo xam ne képp ku ko judduwaalewul ak num la mën a dalee boo ñëwee dañ koy saafara ndax bu fekkee da ngaa niiw kàttan danañ la jox kàttan goo xam ne dana la sax yéem dana jéggi dayo ci yow su fekkee dafa màggut buñ jëflantee dana màgg ba toll ni nga ko bëggee waaw xam nga awra du du tuuti mais xam nga euh, xam nga awra siddit la dafa am ñoo xam ne siddit gi day génn bu baax am ñoo xam ne siddit gi du génn lu bari day des ca biir léegi nag loola des ci biir dafa am nag ay secret yu koy génne comprendre nga moo tax bu bu nit di yéemu ci yokk awra ak ñàkk yokk awra loolu amut nangam nangam non du loolu awra daanaka mën naa ne benn tuutiwu ci ñii dañuy yokk awra waaw moom moom laa la xam nga awra sidit la ñii am dañu dañu am sensu sidit gi génn lu doy ñii am am jafe-jafe euh, mu génn waaye liy des ci biir day bari léegi nag loola ngay euh, am secret yoo def ba mu génn ni mu war a génne rek waaw loolu loolu nag lañuy tuddee yokk awra xam nga li ma la mais man euh, jàpp naa ne sax euh, yow am na gëstu yoo ci def avant ngay ñëw am na ay témoignages yoo ci mën a euh, jàllale waale sax ci biir kii bi avant ngay boo koy jàllale dégg nga waaye jàpp naa ne ci wàllu ngóor a moom def naa ci lu ne daal dama cee def lu ne nag loo xam ne nii moom wax dëgg yàlla façon jaxle bu ne la ci nit am ñëw fii mu saafaraw ba mel nu raw na mu ko doon séentoo kon nag loolu ak cant lan ci am rek eh, di wax ne mooy li ma doon wax sànq rek juddoo ci ëttub xam-xam moo mel noonu soo ko defee rek lépp looy eh, kii ci wàllu ñaan par exemple xam nga bu dee néew kàttan xam nga da ci am ay secret yoo xam ne gis nga ko nii maanaam par exemple xam nga bii bëgguma sax di parce que ni mel maanaam ci gàttal fi mu nekk nii am na ñoo xam ne tur bii nii ngay seen nii rek ak lii ma ko kii boo ko doon doo six cent seize euh, comprendre ga bu dee kàttan moom yaakaar naa da nga ko am ba mujj mere sa bopp waaw am na nag ñoo xam ne ça dépend nag ci nit ki ni mu ko dalee ak na nga ko koy saafaralee waaw façon saafara am na ñoo xam ne da nga leen jox ñu naan am ñoo xam ne dafa am looy bind ci seen pooj am ñoo xam ne dafa am looy bind raxaseeku seen awra am ñoo xam ne ci ñam bi lay aw am ñoo xam ne ci nen nga koy awale euh, nenu nenu nenu ginaar yi xam nga li ma la wax ginaar original waaw ba dañ cee bari ay secret daal vraiment ci wàllu ngóor musuma cee musuma cee am kaa te saafaru saafara ko borom ba mu am ci lu kawe njortam loolu nag sëñ Touba seere na Euh, Bàkke Gaynde Junior am na solo ñu desandi ba léegi yaatal jaal ci beneen ponk dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki mu di wàllum papier gars yi ñu ngi ci réew mi di ci ñaan sax su nekk waaye pour ñu gis résultat day xaw a jafe waaye xam naa peut-être ku ci gis ku mel ne yow xolam mën nay seddi faatu faatu yeeg moodu moodu it sonn nañ réew ma ñaan lu nañ ba sonn. yow est-ce que duma la taalal téléphone bi nga gëstul sa bopp fii ci téléphone bi loolu moom waa waaw si xam nga waaw wax nga dëgg xam nga lu jëm ci wàllu këyit ak lu jëm ci wàllu tukki man maa ci def lu ci kenn defut moom loolu mën naa koo assuré moom mooy li ma gëm te loolu mooy dëgg waaw man maa ci def lu ci kenn defut waaw ci wàllu ñaan ci papier ak tukki rek ak nga àgg nekk ci ay jafe-jafe ak nga àgg nekk soxla ay këyit pour mën a am liggéey yu baax mënoo koo am loolu résultat bi ma ci def amut ku ko def loolu yàlla xam na ko mm-hmm. waaw loolooy dëgg moom <laughs> waaw loolu moom mooy dëgg loolu moom ko ci jaaxle ubbil naa la samay bunt jërëjëf cheikh bi jërëjëf acca euh, du ma ne sëy xale dina jëm ci ñi nga xam ne dañoo bëgg soxna mu jafe leen waaye ñi nga xam ne bëgg nañ lii di borom kër mu jafe leen waaye soxna yi taamu nag nee naa leen da ngeen di bàyyi taamu bàyyi dàq bi bisimilah. loolu am na euh, saar woo xam ne soriwul dara euh, ci wal fajri wal fajri saar wal fajri am na moom lañ lay bindal am na xaatim buñ koy booleel euh, loolu suñ ko defee saafara jox la nga fuddanoo ko bu dee jigéen nga gu bëgg borom kër balaa fuddan seeraaf da nga am boroom kër waaw loolu moom mooy dëgg <laughs> bu dee góor gu bëgg soxnaat euh, loolaa gën a gaawati sax far waaw loolu noonu la demee loolu moom ku ci jaaxle kër gaa ngi nii waaw ñëwal diir bu gàtt nga sa aaju faju ci côté boobu li nga dimbali ñi nga xam ne dañoo bëgg am doom mu jafe leen ñi am ko taxaw benn yoon te doon na loo xam ne xaw naa metti de sëy lu yàgg te amoo doom day xaw metti na ci kër bari na loolu am na euh, téere bu ma bind ci wàllu lasaraar loolu secret boobu sax boole naa ko ci waaw. téere baa ngi fii ci kii bi ci ci ci ci sama cartable bi ma tënk ci ay secret yu baree baree bari nag jëmale ko ci wàllu lasaraar xam nga. mbir boo ci nekkee di ci yëngu da ngay seet euh, da ngay fexe ba kaweel niveau bi parce que niveau bi dafa beese tellement ba doy nag waar parce que tappalekat yi dañoo bari euh, loolu moo sabab nag man bind naa ci téere boo xam ne bu ma mënoon a kii nii sax dama la koy génneel boo xam ne dajale naa ci secret yu bari secret bu mel noonu nga ma laaj moom mi ngi ci biir téere bi te jàpp naa ne du yàgg dara dana tasaaroo ba ñu bari danañ ko mën a jot danañ ci mën a jariñu téere bi nag li ma ci gën a jublu dafa am ay muudu muudu yoo xam ne dañoo nekk bitim réew di ma jàmbat seeni mbir euh, te boo leen bindalee ñaan balan cee jot di ko jëfandikoo yooyu yëpp dana xaw a kii te jàng nan moo tax ma bind ab téere pour tasaare ko ba ñoom ñi nga xam ne xëy na jàng nan alxuraan man ko euh, yenn secret yi nga xam ne buñ ko amee dana ni mën a jariñ seen bopp waaye dana nu mën a jariñaale xëy na ñenn ci ñi leen jege loolu moo gën a sabab ma bind ko waaw léegi nag alxuraan moom loolu la rek waaw maanaam bàyyiwul dara waaw te alxuraan borom xam-xam yi lay waxal man tamit boroom xel yi bokk man it boroom xel yi laay waxal yafalu maa yasaw yafalu maa yuridu waaw inna laa yafalu maa yasaw waaw inna fii saalika laayatin li xawmin yatafakkaruuna yooyu yëpp boroom xel yi lay waxal li xaw min yaskuruuna li xaw min yaxiluuna day dem sax ba eh, ci biir wama yaxiluha illal aalimuuna daanu na jërëjëf cheikh bi aca kooku mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Junior nee naa leen du mbokk ci naqaree jot ndax numéro am dañ koy af suufu barre d'écran bi mu leer nañ fépp foo toll rek di nga ko mën a gis soo ko soxlaa doo ko contacter dina jëflanteeg yow ba sa sedd guy cheikh bi damay ñëw ci ubbeeku bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ndax jamono ji léegi Euh, mbir yi dafa dëgër ñii ngi jàmbat dañu umu xaw ma cataleen jàpp ubbeeku bu am solo nag dafa baax nga mën di mos bu baax di faj say soxla. waa ubbeeku de moom ñaar yi nit moom bu tëjoo boo ñëwee ci barab bi man nañ laa jox euh, bindal ay mbir euh, boo demee nga jëfandikoo ko comme tamit am nañ fi ay barab yoo xam ne ku ñëw tamit mën nga caa dem sangu ca jëfandiku ca loolu yooyu yëpp am na ci kër gi mm-hmm. waaw loolu lépp am na moom ubbeeku nag ay façon yu bari la waaw yii mën naa nekk looy sango lii mën naa nekk ab jaaro lii mën naa nekk ak ndomba alxuraan moom boo bëggee dégg dëgg bàqara ba minal jinnati wa naasi aajo ju ma nit tegal mën naa la maanaam bépp aajo bu nit di am di ko doxaali ci addunaam boo ma ko tegalee rek mën na maa génne aaye alxuraan ya ko mën a saafara ak xaatim ba ma la war a daggal sunguf sam war a composé ak yaa ca aju lépp te boo ko jëfandikoo force da gis résultat loolu moom mooy dëgg li tax ma ne force nag du jëmm ji waaye alxuraan ji la loolooy dëgg. acca euh, ñëwal ma ci nopp li may wax sëriñ si saa ma leen di laaj dama leen di naan jàppee wu ma ko la yomb sëriñ bu ko jàppee la yomb nag xam naa ci xam-xam xam-xam moom amut lu mu mënut waaye nopp ci boppam yomb na waaw. ndax boole nit it dafa solo de njaboot yi dañu féewaloo nga gis ça euh, dépend ci nit ki euh, noob jafe na yomb na ça euh, dépend ci nit ki xam nga nit ñi dañoo gën a neex a jàppante xam nga loolu li ko sabab mooy rawxaan yi ñoo bokkul doomu adama yi bokkun maanaam doomu aadama daanaka ñëpp ak li kenn ku ne ak li la suñ borom mooñaale am na ñoo xam ne boo leen liggéeyee rek jàpp leen am na ñoo xam ne boo leen doon liggéey fii ba déwén pour nga jàpp leen dana jafe xamali ma la wax léegi nag loolu moo tax moom euh, question bu mën a doon da nga tontu lu sik lu leer loo xam ne bu ko boroom xel déggee dana xam ne lii mooy li leer waaw loolu noonu la demee léegi nag bu dee noob bu dee ki nga xam ne nii moom euh, du jëmm ju aaru comprendre nga bu dee ki nga xam ne du jëmm ju aaru nga xam ne moom daanaka lu jug jàpp ko nga xam ne maanaam euh, euh, rawxaan wi mu àndal aaru ko biddiwam tamit euh, tëxawit wut noonu comprendre nga kooku moom loo ko def boo ko doon noob daanaka noob nga gën a yomb boo ko defee man na koo jàpp mais ki nga xam ne nii nag dafa am yu koy aar xam nga tey am na ñoo xam ne par exemple askan wi ñu bokk dañoo yor xam nga doomu aadama da yor rawxaan waaye da cee am nag ñoo xam ne dañu bokk ci askan woo xam ne askanu tuur la maanaam ñu yor ay xàmb ñu yor ay rab dondu ko ci seeni maam comprendre nga yooyu dafa am te da ci am ñoo xam ne dañuy bokk ci yu noonu nga xam ne dañuy aaru nga xam ne yooyu li feeg yaa ngi leen di toppatoo dañ lay aar ba nga xam ne tey bu nit jugoon di la def dara pour mu jàpp day jafe am na tamit ay ñaani waajur yoo xam ne tamit bu toppee nit ki pour nga mën koo liggéey jàpp ko voilà looloo lu am la parce que dafa am ñoo xam ne nii nag dëgg dëgg nag seeni waajur dañoo sonn ci seen kër baay comprendre nga am baay yoo xam ne dañoo sonn ci seenu njaboot ñooñu nag doom ju leen sonnal ban xool la ba gërëm la euh, pour nga yàq leen lu jafe lay doon mais nag ba tey daal loolu lépp tekki wut ne nag euh, moom noob noob du la jàpp wala liggéey du la jàpp liggéey moom ñëpp lay jàpp waaw loo kawe-kawe ak loo tedd-tedd ak loo màgg-màgg ak say maqaama nu man di toll liggéey dana la jàpp comprendre nga ñaan it dana la jàpp loolu moom mooy dëgg ndax alxuraan mooy waxe suñ boroom yi gën a tedd xam nga li ma la mooy téere bi gën a tedd ci àdduna te waxe suñ boroom la alxuraan jooji nag la ci suñ borom namm ba bi mu ko wàccee yëmaliwut mbóot yi rek ci ñu ciy julli jàng ci sunna si yonent bi salaay salaam xam ni ñu wooree ni ñuy ni ñu dundee daal suñ diine ba maîtriser ko alxuraan li muy bari bari mënoon naa yem ci loolu waaye yemu ca boo xoolee borom xam-xam yi dañ koo jàng euh, dem ba maîtriser ko dem ba xam euh, aajo joo mën a indi aaya ba mën a dëppool ak la nga ca mën a def ak la a dindi <laughs> xam nga ni ma la tey fatiha bii rek am na aajo joo xam boo ko bindee maanaam boo ko bindee maas ko boo ko laalee dana la jariñ am na aajo joo xam ne day laaj nga bind ko bañ koo maas tomb ko am na aajo joo xam ne da koy bind doo ko tomb doo ko maas <laughs> jeex na xam nga yooyu yëpp ay xeeti secret la yoo xam ne xam-xam moo yaatu boo bëggee dégg dëgg waaw xam-xam nag li muy jariñ mooy soo ko jàngee ba xam ko nga jariñoo ko waaye nag nga jariñe ci loolu rek lay jariñ waaw loolu mooy dëgg jërëjëf Cheikh bi atia kon ñu njëkkanteeg waxtu wi jàll ci yeneen i ponk bi yoon damay ñëw ci protection mu di kaaraange dama koy wax saa su nekk jamono ji ñu toll nag fépp fu ci nit yaakaar rek demal sol say daal nga dem euh, wuti kaaraange ndax dëkk bi moo tëri bi da koo laaj ñëwal ma ci façon ñaani kaaraange yi nga xam ne yaa ngi ko def. xam nga kaaraange moom damaa yaakaar ne sax moo doonoon question bi nu waroon a njëkk a souligner ñuy dugg ci ubbeeku. ndax xam nga nit doo ko ubbi te loolu moom mooy xaru <laughs> comprendre nga loolu mooy xaru xam nga bala ngaa dugg ci ubbeeku ndax ubbeeku tamit dafa yaatu ubbeeku boo xoolee boo doon jàngat ci wolof rek da nga naan yëkkatiku adduna mi ngi ci maanaam kawe ba ñëpp di la tudd mi ngi ci bayra mi ngi ci wërsëg mi ngi ci aussi xam nga li ma la maanaam yëkkatiku moom mooy mi ngi mel ni nga ne eh, eh, nga defar juma def ab soorool nga xam ne soorool bi fu waay toll di ko séen noonu la demee comprendre nga léegi nag loolu bala nga cee dugg xanaa da nga aaru ba pare xam nga eh, tey boo doon defar juma bala ngaa defar soorool bi nga xam ne fu waay toll séen ko dana am fondement ci suuf <laughs> comprendre nga <laughs> dana am fondement am ay keno yu dëgër comprendre nga léegi nag fondement boobu ek kenn yu dëgër yooyu moo waral nga mën a seen sorol bu taaru bu nekk ca kaw foo toll di seen taar ba léegi nag boo ko doon misaal ci wàllu ñaan kon mooy euh, yëkkatiku ak ubbeeku mooy sorol bi waaye nag dafa am keno yu ko téye ci suuf mooy fondement bi ak euh, euh, keno ya ca suuf loola nag mooy aaru waaw aaru nag mooy li nga xam ne bu ko nit ki defee fu la neex daagul jàmm cay njëkk jàmm cay mujj waaye nag nit ki moom saa yu la kaaraange rëccee loolu mooy boo bëggee yëkkatiku rek mooy yaa ngi xaru te kilifa gu màgg a màgg dafa ne woon euh, euh, euh, ndaw bu faatoo ñu xool ndigg la te fekkun ci lu mat juróom-ñaari ndomba dafa xaru parce que cat dafa doy waar cat dafa doy waar gàllankoori adduna doy waar bët doy waar làmmeñ doy waar loolu boo xoolee Sëñ waa sax bind na ci ci ñi nga xam ne seen bët dafa doy waar ak ñi nga xam seen làmmiñ dafa fees del fe jafe lu ñu xool mu yàqu am na làmmiñ yoo xam ne luñ tudd noonu boo xoolee sëriñ bi mu ciy bind nee na ñu mel noonu sax dañ leen a waroon a defal lu mel ni miir bu kawe ber leen <laughs> ndax dañuy lor comprendre nga xam nga bi nit bi muy du du judd bi mu nekkee ci biirum ndeyam rek la ko cat commencé topp fu nday ji Euh, romb ñu naan ah kii di dafa mel dafa toll diggante dafa biir dafa ëmb xam nga li ma la waa kay mi ngi noonu su demee ba am doom nga tàmbalee jàngat ca doom ja nii la mel nee la mel na xam nga li ma léegi nag làmmiñ yooyu di la ci tudd am na ci tooke am na tooke ju nekk ci làmmiñ bët yooyu di la xool naan kii rafet na kii ñaaw na euh, bët yooyu yot euh, am na tooke ju ca nekk léegi nag loolu moom moo waral kaaraange man ngaa sangoo bayra tey wala nga sangoo lu lay ubbi toogaat ab diir soo koo defaat waaye kaaraange moom mooy loo xam ne nit ki da ko war a fonk te fu mu toll di ko di ko di ko bañ a gëj a def waaw xam nga li ma la beneen ba ca dolliku euh, nit dafa war a fonk saraxe waaw saraxe dafa am solo ndax mooy loo xam ne man dama gëm ne euh, tey loolu xam nga saraxe du fardul fardul kifaaya ndax dafa war kenn ku nekk ci ñun ndax mooy loo xam ne bu ko ñëpp boyoon ko te boo moytuwoon ñetti fan buñ ko ci tegee rek asamaan ak suuf mën nañoo daje comprendre nga kon euh, sàkk sarax ndax sarax dëgg la baat bi am yàlla jox la la ñuy faral di wax mais xam nga sarax ku koy def ku ne bëgg sa rawxaan woyofal say mbir ba sa adduna mën a dox lay doon parce que rawxaan mbir la moo xam ne suñ borom moo ko lëkkaleeg doomu aadama yi te suñ borom du teg na joo gis rek dafa am ay sabab <laughs> xam nga li ma xam nga suñ borom dafa wax ci alxuraan ne laxad xalaq na linsaanu fii kabadin adduna nag moo bindoo noonu ba suñ borom tudd ko ci alxuraan comprendre léegi nag euh, noonu noonu suñ borom waxee ne laxad xalaq na linsaanu fii kabadin léegi nag euh, euh, nit ki fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran bu la neexee sax nga ne sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusran léegi nag noonu la demee moo tax nag euh, ci wàllu woowu nit dafa war a fonk kaaraange waaye fonk ubbeeku fonk saraxe ndax ñett a ngi nii yoo xam ne loo ci sàgganee rek dana def effet ci sa ngiru ci sa dund bu baax a baax <laughs> loolu noonu la demee <laughs> jërëjëf euh, cheikh bi jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo kon comme ni ma koy defee saa su nekk dañuy dem ci actualité mu di xew-xew jamono gis nga réew mi fi mu ne nii lu doon dara ma ne ñu ngi tàngalate fi mu ne nii campagne bi tàmbali na foo tollu ñu ngay wax fee ñu dëgmal élection législative yi waaw élection législative yi kon mu ko euh, léegi nag gars yi doo waxee ñu ne ñee dinañ am majorité fële assemblée pour mën a régler li ñu bëgg a régler ñee dañoo bëgg affaire xëccoo la xaw ma dañ koy séddoo xaw ma ñee dañoo jël lépp waaw Ousmane Sonko nag moom nga fële. Sonko de ñun moom rek la ñu topp waaw xam nga moom rek laay topp <laughs> moom rek laay topp voilà xam nga euh, man moom ku xam xamee ma ak procès bi yaakaar naa def naa ci lu ne wax naa ci lu ne itam euh, li ci nit li ci gor di def lépp def naa ko ci jàpp naa ne fii nga ma fekk ku la ne woon bi marché yi am bokkoon naa ci ñiy wàcc <laughs> comprendre nga kon jàkk jàpp naa ne bu dee def def naa ko ci bu dee waxit wax naa ko ci am na fii ay vidéo yoo xam ne jamonoy marché yi la xam nga li ma la wax mais euh, Pastef incha allah dañuy am majorité assemblée national loolu du débat moom waaw ah, loolu moom euh, dañu am cent cinquante quelque députés incha allah ñi des moom mérito wu noo am dara parce que ay tappalekat lan parce que ay tappalekat a des boo fi jëlee Pastef rek ay tappalekat a des waaye nag euh, loolu moom dama ciy may teggin bu baax a baax nag benn parti rek muy euh, muy piir ñooñu nag xam nga sëñ Moussa moom kilifa la te <laughs> voilà waaw sëñ Moussa moom euh, kilifa la duñ ko boole ci ci ci ci ci ci caaxaan yooyu moom moom xëy na situation ñëw mu doxalee ni mu doxalee donte séentuwuñ woon loolu mais nag boo fi jëlee Pastef ak piir daal ñi ci des euh, koo fi mën a liimaat ab tappalekat la ndax boo nee euh, boo nee Barthélemy Dias un du as gor du as gor te mën naa fen te tappalekat la yaa ngi dégg parce que tey jii rek boo ne ko woon Ousmane Sonko tax nga jël mairie dakaar da koy di taxaw na lank lay def te xam nga loolu kàcc fa réewu ko kaw kooku tappalekat la moom loolu leer na la te du wax dëgg manipulation lay def Pape Djibril Fall malheureusement bi muy débuté nekk euh, chroniqueur ca TFM tele naa feq yooyu ba mu fay nekk di def ay chronique am booba moom dafa dafa da doon wax dëgg te yàlla tax booba ñun jëpp na day par parloo te itam li tax mënuñoo jàpp loolu mooy lim doon wax da ko doon teg ci ay fee xam nga Sonko moom dafa neex a waxtaane Sonko mooy politicien bi gën a neex a waxtaane nag parce que loo ci wax lu ne mën nga koo argumenté est comprendre nga loo ci wax lu ne day méngoog dëgg te mën nga koo argumenté teg ko ci ay base légale yu wóor nag léegi nag moom bi mu nekkee TFM da doon chronique gis ne askan wi bëgg nañ ko comme nin bëggee Ngagne Demba Touré comme nin bëggee Cheikh baara Ndiaye comprendre nga comme nin bëggee ay daam Mbodj ay may Maimouna Bousso euh, et cetera sympathisant yooyu xam nga leen ñi nga xam ne maanaam même buñ bokkut ci parti bi itam dañuy wax dëgg te yàlla tax waaw di analyser di wax seen ak aqullahi la xam nga li ma la boo xoolee moom bi mu duggee ci politique man li ma gëm mooy peut-être Youssou a nekk ci ginnaawam mm, moom Pape Djibril moo tax tappalekat la léegi léegi daal léegi daal li wér te wóor mooy bokk na ci ñi dàq kàcc ci réew mi te tappalekat la waaw loolu moom loolu moom mooy dëgg waaw ay waxam soppeeku ba kenn xàmmeetu ko euh, boo jëlee kan euh, anta anta xamut boppam voilà anta boppam ndax bu fekkee moom baayam dafa am entreprise bu mu yor mu jiite ko euh, xam na ne ñii yor réew mi tey nun suqalee réew mi la ñu wër li gënoon ci moom mooy mu tànn li sëriñ buub tànn boo wutee amoo da ngay dem ànd ak ñi am nga seet sa entreprise boobu comme mën naa créer ay emplois xam nga li ma la nga fexe noo lëkkaloog état. goret est-ce que dogu ma la mën na yenn fu tooy rek nga tag ni weñ. loolu du question gor du question ka fu tooy da nga doon wut amoo ñi yàlla jox bin fi toogee ba tey ëmut loo leen mën a corriger teg ko ci ay bases légales yu dëgër amut. vision amut ànd ak ñoom xam nga mënoo ñàkk vision ànd ak euh, Sonko di am vision ànd ak ay Barthélemy Dias ak APR gi nga doon xeex bërki démb loolu moom mënul nekk wax ma leneen loolu su amee rek ay tappalee fa nekk waaw loolu mooy dëgg moom waaw loolu moom mooy dëgg mënoo ñàkk ne amoo vision ànd ak Sonko ci dëgg ak Jomaay ba noppi am vision ànd ak APR gi nga jàkkaarlook ñoom euh, démb ñu lay woo ci euh, négocier ak yokku yokku mandat nga lànk ñu woola ci ab dialogue nga lànk yaa ngi dégg tey nga bëgg ànd ak ñoom di xeexaat li fi ne xam nga politiciens yi faawu ñu respecté askan wi parce que askan wi gis nga ñun suñu révolution def nañ ko ba pare tëlatuñoo xeex tëlatuñ yooyu yëpp tëlatuñ ko lin tal mooy teg ay stratégie liggéey réew mi mu dabe nee nañ réew mi fi mu ne dëgër na yéen waa Pastef waaw ndax ci nga bokk mooy euh, tappalekat yi nekkoon ci assemblée nationale réew mënoo koo doxal lépp di dox nin leen joxe pouvoir exécutif bi nan leen joxe noonu pouvoir législatif bi suñ ko defee rek léppay dox incha allah. nañ di waar vaar seen leader bi de Ousmane Sonko wala dafa teel. ah léeg ñu ne moo fi waxoon réew mi léegi ñu soppi ko balaa ñoo def temps de weer mu soppeeku waan yi mu doon wax yëpp gaa ngi commencé nañ di koy vaar. mais soppeeku na man ngaa waat ne réew mi soppeekuwul métteetu lan waaw moom laa la wax looloo tax nag ñu ñu soxla pouvoir exécutif bi maanaam pouvoir législatif bi parce que pouvoir exécutif bi moom mooy fetal gu ëmuti bal mais boo yoree pouvoir législatif bi nag mooy yor nga fetal mais am nga ay bal yoo tiire itam da nga mën a joyanti parce que ñoom ñoom ñoom ñoom li tax ñu bëgg ay député nii bëgg majorité ñoom euh, opposition bi mooy dañoo bëgg a bloqué ñii pour ñu échec ci cinq ans yii ñu jëm bu ko defee bu cinq ans yi jeexee ñu jàbbali seen nag askan wi bu ko defee ñoom tappalekat yi ak euh, euh, système ba woon ñu dellu siwaat gouverneur réew mi loolu nag Sénégal yi duñ ko nangu parce que fii moom ñëpp a denc ak réer yi tëdd nan sangu mais kenn nelawu fi nag yaa <laughs> comprendre nga léegi nag euh, moo tax yow gis nga ne opposition bi sax ñi ëpp wax ñëpp Sonko la ñu roy te daqaar du saf ñaari yoon loolu moom mooy dëgg. parce que da nga fay gis ñu fi Sonko Sonko. waaw loolooy dëgg xam nga ku mel ni Bougane ci Sonko Sonko lu la nekk. xam nga mënoo mënoo benn xam non bu jëloon yoonu boppam kay ñoo ne yoonu boppam la jël mais day sonko sonko xam nga exemple tey sonko euh, avant muy dugg ci di xeex ak état di def résistance dafa indi woon débat d'idées indi pétrole et gaz indi livre solution yaa ngi may dégg te bul fàtte ne sonko dafa dem euh, bokkut ak ñii nga xam ne amun bac amun amun amun BFM lool euh, doon loolu du ay xeer loolooy dëgg dëgg rek la ñuy wax sànni woon xeer beneen ba ca dolli ko bul fàtte ne Sonko dafa nekk euh, ENAM nekk di liggéeyal askan wi dem ba nekk nun koy waxeeti sax mm, kii ba liggéey ci liggéeyal état fukki at ak juróom lancé défi Sénégalais yi ak ñi doon xeex ak ñoom yaa ngi dégg mu lancé leen defi ne ku xam benn dërëm bu ma lekkal Sénégal ñëwal wax ko bim bi mu lancé defi loolu ñoom loolu lan njëkk a taxaw di ko saytu pour mën ko caa gàllankoor léegi nag ban saytoo saytu xam ne gor su set wécc la loolu moo waral ñu créer Adji Sarr askan wi xeex ak ñoom ba gañe leen ci Adji Sarr ñu dem créer diffamation Mame Mbaye Niang Prodac yaa ngi may dégg loolu noonu la demee léegi nag waaye bul fàtte ne euh, Sonko bi mu nekkee tamit euh, di liggéey impôt et domaine fukki at ak juróom jomaay mit fukki at ak juróom benn la fa def moom itam aw fi Sonko aw gisoo kenn ku taxaw ne moo fi jël lii yaa ngi may dégg ba bi muy jot ci réew mi sax boo xoolee juba tax ba muy def déclaration patrimoine euh, ay 4 millions yooyu loolu nga xam sama classe gi sax jomb nañu <laughs> comprendre waaw xam nga loolu lu lu lu lu kiimaane la beneen ba ca dolli ko bul fàtte ni Sonko dafa gis ne réew alalu réew mi ñoom ñi nekk impôt demen dañ ciy xam lu bari xam ne ni ñuy sàccee alalu réew mi ni ñuy jalgate si suufu si réew mi ni ñuy doxaleeg réew mi maanaam politiciens yi nin koy sàcce rawatina bi ñu accès ci euh, coronavirus 2019 bi yëf yi waa kay fonk wit yi gis nga rapport yi ci am rapport Prodac ak 94 milliards yeeg ya ca aju nga xam 94 milliards yooyu Mamour Dia Mamour Diallo moomu moo dem ba créer kompuloo Adji Sarr bi yaa ngi dégg léegi nag loolu bi mu amee soo ko ñoom bi mu leen sonalee bi mu nekkee impôt demin looloo indi ñoom ñu rajee ko dàq ko mu dem nag wéeru ci yàlla ndax booba ñoom leen doon def mooy jéem koo toroxal détruire ko ba dootu tekki dara mais leen naan ko yàlla bëgg a yëkkati amut benn doomu aadama bu la mën a suufeel ndax ku xam Macky Sall xam ne xol bi ni mu bonee ak ni mu doon xeexee Sonko yëmalewu ko sax ci Sonko mais Sénégal yëpp la mujj di xeexal. waaj a yëngal seen réew mi de wala daa foog. day tappale rek ñemewu fee jaar euh, boo <laughs> sàcc boobu dana jaar xalaatu ko sax moom kay waaye nag lu mu tappale tappale bu élection législative yi jàllee ban taxawal euh, cour de la kii fele ca assemblée national danañ ko lancer mandat d'arrêt international fa mu nekk danañ ko fa jàpp. ndax mënu fee ray mu fi ray sàcc fi li mu fi sàcc dem di nekk ci jàmm loolu duñ ko fi nangoo moom loolu mënul nekk kon bul fàtte ni Sonko dafa am ay jaar-jaar yu riis nag yoo xam ne ñoom bin ko dàqee ngir toraxal ko toraxal ko moo leen yëkkati woon loolu moo sabab nag mu dem euh, laaj baatu askan wi ñu fal ko député yaa ngi may dégg bin ko falee député ci taxawaayam assemblée nationale euh, bi ko nit ñi doon xaaree loolu moo dem ba sabab mu mën a fal ay maire muy ay ñoom Barthélémy Dias ak ay kii loolu moo sabab tamit loolu moo ko may tamit mu dem ci élection 2019 mën a am euh, euh, donte tappale nan 15 pour cent lañ fësal gëm naa ne am na am na 30 pour cent man gëm naa loolu gëm naa ne sax moo jëloon deuxième dañoo def seeni manipulation indi iddi deuxième mu taxaw ne du xeex jébbal nguur gi Macky Sall yaa ngi dégg mais pour wax la ne la léegi nag bi loolu amee ci taxawaayam assemblée national message sam di tasaaroo léegi euh, au moins kon nan nangu ne mu am 15 pour cent ci deux 2019 élection présidentielle yi 2019 officielle léegi nag waaye ñu am beneen électoral feneen mais boo xoolee dafa am lum tibb Dakar am lum tibb Ziguinchor am lum tibb Touba am lum tibb Louga am lum tibb région Ndar am lum tibb euh, maanaam mbooleem région yi léegi nag loolu li ci état bi jàngatee mooy xam na ne kon kii message am tasaaroo na comprendre nga léegi nag bin xamee ne kii message am tasaaroo na loolu moo indi nag euh, état bi euh, ne dañuy xeex ak moom xam nga yaa ngi fàttaliku ma jambal jaañ bi fi wax ne ba mu jotee sëñ Bass Abdou Khadir mu ne ko Sonko mii xawma 15 pour cent yi faaw ñu xeex ak moom balaa deux mille euh, deux mille vingt quatre parce que bu jotee ci réew mi yéen seen lislaam ji ngeen yor l'islam maanaam def ko xeetu lislaam local quoi ma jambal pour jàppalise xam nga li la naan mu ne ma man man sëñ ma sëñ ma jambal xam nga li la léegi nag ñoom bi ñu xamee loolu léegi nag ba élection 2019 yi bi mu jàllee nag léegi nag Macky Sall comme tegoon na bët ci ne dafa war a am troisième mandat léegi te récupéré na sa Seck léegi mu ne am na quatre-vingt-quinze pour cent euh, ci électoral élec électoral bokk léegi kon euh, euh, day xeex ak quinze pour cent yi ci des muy Ousmane Sonko comprendre nga léegi léegi nag noonu la demee mu dal ci kaw Sonko Sonko nag boo xoolee yàgg naa alerté boo xoolee alerte yim daan def sax moom lan mujj jël naan da daan da daan offensé chef d'état maanaam euh, déclaration yi daan def nga xam ne résistance la ñoom ñu def ko waaw waaw conférence de publique yi mu daan def xam nga li ma la di artu di artu Macky Sall pour mu indi jàmm boo xoolee 2021 bi xeex bi jàllee déclaration bi mu def bi ko Cheikh Mamadou Mountakha joxe ndigal boo xoolee déclaration bi mu def ne nan ko bàyyi mu àggale nguuram bu ko defee bu jeexalee ñu mën a defaraat réew mi yaa ngi dégg mais Macky Sall moom comme dafa gëmoon ne war naa mën a am troisième mandat mu ñëw fase waajaat dem wuti ay ngànnaay ñëw pour xeex ak moom ci vingt 2023 bi suyee 2023 yaa ngi dégg léegi nag xeex yooye Ousmane Sonko nekkutoon ne dafa yaboon Macky Sall ñëw di ko déclarer ger wala di ko dee dem respect bu mat sëkk la ko wan bëgg réew wan askan wi bëgg réew mi gu mat sëkk wan askan wi li tax réew mi tardé ak yoon wi nga xam ne buñ ca jaaree Sénégal dana dabe maanaam dana suqaliku ndax am nañ pétrole gaz zircon am nañ lépp loo xam ne nii rek buñ ko exploité xool ci suñuy intérêt bañ cee xool intérêt tubaab yi yaa ngi may dégg Sénégal dana ci yëkkatikoo léegi nag loolu bi mu demee noonu euh, léegi nag askan wi dëdmal ko bu génnee sax jaar ci tali bi da ngay gis ni ko askan wi toppee loolu nag dem ba déranger nguur gi ñu ne dañuy xeex ak moom tëj ko ci kaso bi yaa ngi dégg ndax boo xoolee loolu moo indi bi koy àccee ci procès Adji Sarr ñu ne ñu doon topp viol ak menace de dem seetal viol ak menace de indi corruption de la jeunesse boo xam ne amut ci ñoom ku ko mën a trouver comprendre nga léegi pour wax la ne la tappale yi foofu la àggoon ci réew mi Sonko nag wan na leen ak bëgg réew mi akuk dal kenn ku ne nga indi débat di def fexe convaincre askan wi ci sa programme léegi nag mais ñi fi nekkoon nam ñoo ko répondre nag ci mërs loolu moo indi xeex bi léegi nag kon ñun dun xeex nag ba jot ci réew mi ay bakkan faatu ay cir laago alal yàqu deret tuuru ba tàyyi ay kër daanu ay caaxaankat ñëw nag di ñu divertir ci ay caaxaan mooy tappalekat yi ay ma Yirim Seck ak ma jambal Jaañ te TFM ak euh, Bougane Gueye te xam naa ñu ci bari daal amadu Ba nekk seen ginnaaw amadu Ba moom politique am dafa salte yaa ngi dégg waaw loolu moom mooy dëgg ñu ci baree baree bari ndax moom du génn di wax lu bari waaye bari na ñuy wax ñoo xam ne moo nekk ci seen ginnaaw comprendre nga léegi nag ñun kon def nañ suñu révolution képp nag ku fi nekk ci ay caaxaan ak i tappale di jéem a offensé chef de l'État li war mooy ñu yar la mooy li ma doon wax fan yee rek yi daal sëñ bi dafa war a nekk ab dictateur ci cinquante premières yi bu ko defee bu buñ réglé réew mi nag bam ne cocc réglé tappalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di def manipulation di sonal askan wi ba pare nag ñu soog a delluwaat ci voie normale bi mais man li ma gën mooy ni ma gisee réew mi ak ni muy doxee nii ak tappale yi am ak ruube yi am ak euh, mooy loolu manipulation yii am voilà man naqari na ma vraiment lu nu war a régler la nag kon euh, teg ko ci yoon leneen la may jeexalee nag mooy euh, am na kon fal fan yi coow li bari woon na mais nag euh, na ñëpp dal rek comme ko li war def na ko wane na ne yëg na coow li wane na ne mi ngi ci wetu askan wi président de la république tamit mënta def décret nommé nit askan wi songaat ko rek mu dàqaat décret boobu loolu du respe loolu soo ko defee da ngay def euh, liñ naan euh, saafara ju far jur jàngoro loolu nag kon ñun nañu xam li ñu xeexe rek te ànd akok dal nañu respecté ñi ci faatu ñu suul leen waaye nañu respecté ñi ci seeni cër laago waaye nañu respecté kër yi ci daanu ak injustice bu bari bi ci am kon nag mi ngi noonu. gën a ak Modou Lo kan mooy daan làmb ji la ci desate bëriwul. sama yoon nekku ci man bëri moom caaxaan yooyu sama yoon nekku ci waaw. doo ñaanal mbëri. que le meilleur gagne. du ñëw nga ci loolu. non non yooyu moom non man xam nga nag euh, waa bëre de moom suñ culture nationale la mais man euh, daanaka tàggat yaram nag li ma ciy gën a xaw a bàyyi xel euh, football la moom waaw moo ma taneel daal. Real Madrid moo xam mooy sama équipe. waaw moom moom moom ñoom laay support. ndax sénégalais yi ndax daam koo ci ñaanal. ah waaw. <laughs> <laughs> baal noonu rek. ñan ngay suivre ñan nga ñan nga a fan ci monde bi. ah ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp sagal Sénégal andil nañ ñu Coupe d'Afrique voilà vraiment ñoom ñëpp lan ah Sadio Mané xam nga c'est le meilleur xam nga boo seetee sax waroon na fee jël baloo door ñu xañ ko ko comme nin ko xañee Vinicius siñoor démb <laughs> comprendre nga der bu ñuul daal mooy loolu mais nag li may wax rek kenn ku ne sa bopp la boole ci àdduna nanu gën a fonkaat suñu bopp rek xam ne suñ der bu ñuul bii moo gën mbooleem der boo mën a gis waaw parce que wàlliwu yàlla yu bari der bu ñuul lan yor ah ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm defe naa waxtaan wi <laughs> bett na waaye nag wax nan sunu xalaat rek peut-être ñu am ñu ñu bokkal gis-gis peut-être dana am ñoo xam ne mais man li may wax rek wax li ci am solo mooy boo ko waxee na tegu ci xam-xam nga arjumante ko rek léegi nag ñi nga bokkal gis-gis alhamdulilah ñi nga bokkalut gis-gis ah xayrun